salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci affaire Ousmane Sonko ak aji Sarr kii di Ousmane Sonko nag daal dina jot li nga xam te ni moom moo di convocation kenn ci ay avocat am di confirmer mbir moomee dinañ waxaat tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Mame Gor Diazaka ak soxnaam di Fatou Thiam dinañ wax ci ki nga xamante ni moom moo di Moussa Sy euh, dinañ wax tamit ci li nga xamante nii moom moo di ay faits divers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 salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme ni ma leen ko waxee woon ca njëlbéenu xibaar yi dañuy doore euh, xibaar yi ak li nga xam ni moo ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr mbir mi nag léegi euh, mu ngi commencé euh, jege li nga xam te ni moom moo di leer mën nañoo wax loolu. ndax nag kii di Ousmane Sonko moom daal dina jot euh, lettre de convocation bi nga xamante ni moom la doon euh, xaar euh, ñuy xool nag ndax dina wuy ji wala am déet dañuy daal di bàyyi Fatou Ndoye rekk mu daal di koy faram-fàccee. di nga am info yu leer ci people et sport politique. salaamaaleykum internet Feeling Dakar ñu ñëw ak euh, ci euh, mbirum Ousmane Sonko dem nag euh, jëli convocation bi nga xam ne kii di maître Khoureychi Ba moom def na décharge bi ginnaaw bi ñu yëkkatee li nga xam ne mooy immunité parlementaire bu Ousmane Sonko yombal na li nga xam ne mooy convocation bi nga xam ne war na ko wuyu suba si mercredi bi à 9 fële ci huitième cabinet bu juge d'instruction Mamadou Seck ñuy xaarandi rek ki nga xam ne mooy euh, président Ousmane Sonko mu wutul li xam ne mooy euh, audition bi nga xam ne war nañ ko amal fële ci euh, palais de justice ba tey tamit dañuy desandi ci li nga xam ne mooy affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr de presse bi nga xam ne waa FRAPP amal nañ ko si suba ñoom nag ñu ngi ñaawlu li nga xam ne mandat de dépôt bi nga xam ne teg nañ ko ci kaw kii di Clédor Sène Guy Marius Sagna ak Assane Diouf ba tax na nee nañu kii di Guy Marius Sagna nit boo xam ne day yee ab fitna fii ci ci réewum Sénégal moom naka ak acteur social la woon nu mu gisee euh, doxalina nguur gi rafetlu ko moo tax mu wàcc ci li nga xam ne mooy langue politique bi bokk ci mouvement bi nga xam ne moom la ñu luppee frappe Dakar moom nag ginnaaw bu ko tegee loxo moom ak Assane Diouf ak Clédor Sèr ñoo ngi leen di toppee ci li nga xam ne mooy association de malfaiteurs ak appel à l'instruction ñoom nag dañoo njottoon ñii de ñetti ñooñi dañ doog ko programme ñi nga xam ne mooy ab rassemblement ba war a mun a ab ay yëngu-yëngu fii ci biir réew mi ba tey tamit dañuy desandi ci point de presse boobu wax ci li nga xam ne mooy euh, euh, contrôle judiciaire bu ñu teg ci euh, soxna Fatima Mbeng ak euh, soxna ki nga xam ne mooy Birame Souley euh, Diop euh, moom nag dañ leen def su contrôle judiciaire di ñaalu tamit ñoom tamit arrestation yi nga xam ne nemmeeku nañ ko àjjuma bu ñu génn ci kër Ousmane Sonko jigéen yi nga xam ne dañoo faree fële ci parti bi ñu dubbee Pastef les Patriotes ñoom nag ginnaaw bu ñu ñëwee am ab manifestation du ab li nga xam ne mooy nemmeeku seen leader boobu ñu yëkkati woon li nga xam ne mooy immunité parlementaire am ñoom nag dañ jàppoon ba tey jii ñuy wax ak ñoom ñoo ngi fële ca euh, maison d'arrêt bu Rebeuss ba tey tamit ci biir euh, point de presse bu waa FRAPP mën nañ jàpp li nga xam ne mooy euh, ab appel à la marche bu ñu nar a amal ci dëkk bi yëpp bu juróomi fan jotee ci mois de mars bi ñu dëgmal di di rek li nga xam ne mooy force vive li nga xam ne mooy nekk ci Sénégal ñi nga xam ne ñuy yëngatu ci activiste yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci société civile bi waa FRAPP ñoom moom woon na leen pour ñu am mobilisation ci biir réew mi ak si diaspora bi pour stopper li nga xam ne mooy arrestation yi ñu nemmeeku boobu ba léegi. ba tey rek ñu desandi ci coow lu Ousmane Sonko ak Adji Sarr jëli kàddu yi nga xam ne jot na xot ñii di naan ay euh, fake news la ñu ne kii di président Macky Sall jot na ki woo ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko mais euh, kii di président Ousmane Sonko dafa gàttal li nga xam ne mooy appel boobee ñu nemmee ko tamit ki nga xam ne mooy euh, Seydou Gueye Euh, seeti ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko pour apaiser li nga xam ne mooy euh, tension yi di fàttaliku rek euh, suba ci mercredi bi 9h ci palais de justice huitième cabinet juge d'instruction bu Mamadou Seck moom dina déglu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ba tey rek ñu desandi ci mbir bi tey nag ci talaata ji kii di soxna Ndeye Khady Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Sidi Ahmed Mbaye ñoom nag kii di juge Mamadou Seck moo ngi leen di déglu si jamono bu ñu toll nii. ba tey eh, dañuy eh, desandi ak li nga xamante ni moo ñeel eh, Ousmane Sonko ba tax na nag am na ci ñoo xamante ni dañoo jàpp ni que mbir mii ba tey complot la ci noonee sax dañuy daal di teewlu benn émission boo xamante ni daal di woon na am foofa ca Walfadjri ñu daal di ñëwaat. Mm. waaw euh, complot bi dafa leer nañ Moussa. pour yow dafa leer. nañ. d' accord même juge yi la yor yor yor bi ñoo la ko gën a xam. waaw parce que dafa am ay éléments de preuve yu leer nañ yoo xam ni du simple accusation ay fait mhm. yu nekk ci kaw table bi. bi ma ci njëkk a tudd mooy. Mhm. la tentative de corruption de Sidi Ahmed Mbaye. Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed mhm. mooy ki nga xam ne moom la ñu désigné comme étant la la. doomu doomu Maodo Malick xam nga moom gendarmerie déglu nañ ko. mais bañ ko dégloo. xam nga dañ lay déglu séparément après ñu def confrontation. Mhm. def nañ confrontation diggante moom ak ki nga xam ne moom mooy Aïssata Ba. Mhm. Aïssata Ba mooy deuxième masseuse bi nekkoon ci salle bi ak. ak Adji Sarr waaw maman. Mhm. bi takk der bi génnee. bàyyi leen ci biir bureau bi. daf ko doon jéem a corrompre pour que mu noppi bañ a wax. jéem na ko waaw te Aïssata Ba moo ko wax. bi gendarme bi ñëwee rek bañ koy dégluwaat daf ko wax. li may wax nii mi ngi ci PV bi c'est clairement consigné dans le dossier. képp ku liir PV bi. boo demee ci parti ar fi ñu ay sata Ba mhm. nga liir deuxième déclaration bi di nga fa gis lii may bëgg a wax ci confrontation voilà ci confrontation bi mu naan kii Sidi Ahmed Bay jéem na ko jox cent mille francs pour que mu noppi bañ a wax te Sidi Ahmed weddiwu ko waaw te moom moom moo weddiwu ko léegi moom léegi lan lay bañ a ndaw si wax waaye muy benn waaw mhm. loolu muy benn deuxième chose mooy la progression suspendue de l'enquête c'est-à-dire que enquête bi mhm. dafa am direction boo xam ne foofu la jëmul ñu daal di leen di freiner mooy euh, dafa naroon explorer la piste des commanditaires. Mhm. ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les acteurs du complot. Mhm. mais gis nañu ne dafa am précipitation boo xamante ne dañ leen a freiner systématiquement. Mhm. par la suite sax yaa ngi dégg ne euh, commandant bi sax ñu ngi koy waaj a affecté ak yéen mel. ba tey ci nga xamante ni moo ñeel affaire euh, Ousmane Sonko ki nga xamante ni moom moo di Fatou Thiam moom nag daal di woon nañ koy dalal fi nga xamante moo di ca Seneweb moom nag ci moom euh, Ousmane Sonko euh, daf ko daal di yëbbeet ndax nag moom Euh, ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko yor euh, ñaari jéegam lan lay dem uti ci li nga xamante ni moom moo di ay euh, salon de massage ak li ni mu xamee ni que dafay daal di soxla ay massage ak yooyu noonu dafa waroon ñi nga xamante ni moo di ñaari soxnaam ñu dem jàngi li nga xamante ni moom moo di massage six mois wala un rek nga daal di mën ci noonee nag Pape Alé daal di fësal benn audio boo xamante ni nii moom Mame Goor moo ci nekk ak benn xale bu jigéen ci noonee sax moom Fatou Thiam lu mu ci daal di tontu rek. nag moom moo di euh, kii di Mame Gor Diazaka su ko neexee mu dem euh, ci salon de massage su ko neexee mu def lu ko neex ndax nag moom nekkul di yóotu réew mi ci noonee sax moom dafa daal di xam ne rek ni que Mame Gor Diazaka même bu demee ci salon de massage tamit euh, moom moo tey ba tey ñu desandi ak ki nga xamante ni moom moo di Mame Goor Diazaka moomule sax ak vidéo bi nga xamante ni daal nañ ko ci gis moom ak Amina Saleh ci noonee nag euh, video bi daal di def euh, polémique waaye nag ci groupe bi di groupe Topou Cas 221 ñoom nag dañoo daal di dugal foofee vidéo bi waaye ki nga xamante ni moom moo di Amina Saleh nekk ci group euh, groupe boobule euh, gannaaw ab commentaire boo xamante ne ni euh, Khadija Fall moom moo ko daal di def di wax rek ni que Amina Saleh mu ngi ci groupe bi na ñëw tontu moom Amina Saleh dafa daal di yëkkati ay kàddu di tontu li ni moo di commentaire yooyu la di wax rek ni que Mame Gor Diazaka dafa nekk ko nga xamante ni xaritu yaayam la plus de vingt ans ba tax na sax moom dafay daal di jàppee ki nga xamante ni moom moo di Mame Gor Diazaka comme benn tonton wam Euh, ci noonee sax euh, vidéo bi nga xamante ni ñu ngi circulé euh, ci réseaux sociaux yeeg site internet yi vidéo bi dafa dal di daté ci mille 2019 moom Amina Sele loolu la daal di xamle et que ki nga xamante ni moo di Mame Goor Diazaka ñoom ñaar sekkuñu dara lu dul relation entre ndijaay ak jaxbaar ndax xaritu yaayam la ba tax na nag ci li nga xam xamante ni moo ñeel wàllum complot Ousmane Sonko ak li ni mel am na ci benn article bu nga xamante ni daal dina fës euh, ñuy def résumé li nga xamante ni moo moo di opposant yi nga xamante ne nii daal di woon nañu euh, taxaw ngir bëgg a jël réew mi ñi nga xamante ni nag nee nañ ay adversaire de taille lañu woon ci noonee mën nañoo citer ki nga xamante ni moom moo di Khalifa euh, Sall moom xalifa euh, Ababacar Sall moom tamit euh, ni kii le 3 mars 2017 lañ ko daal di convoqué woon ci noonee sax lañ ko daal di tëjee woon ku ci mel ni Karim Wade moom tamit le 15 mars 2013 moom tamit. lañ ko convoqué woon ci noonu itam lañ ko daal di tëjee woon kii di Ousmane Sonko moom tamit le 3 mars lañ ko daal di convoqué euh, ci li nga xam te ni moo di euh, convocation yi ak euh, weer beeg li ni mel mu daal di nekk nag loo xamante nit nii daal dina tey xel ci ñu bëri. ba tey ci lu ki nga xam te ni moo di Ousmane Sonko kii di Moussa Sy nag maire bu Parcelles nii moom tamit daal dina si yëkkati ay kàddu ba tax na nag dañuy daal di teewlu kàddu yi nga xamante ni moom Moussa Sy. daal dina koy yëkkati. le président de la République euh, des voix s'élève surtout du côté de l'opposition pour dire que c'est lui qui a fomenté un complot contre Ousmane Sonko. Votre avis? Moi, je pense que c'est Pastef et Ousmane Sonko qui ont dit cela, mais depuis le début, on sait que ça ne tient pas debout. C'est une affaire purement civile, purement privée, qui oppose deux citoyens. Donc, nous pensons que la justice fera son travail et que ça, après. derrière nous. Mais il n'y a pas lieu de vouloir euh, épiloguer sur ça et de dire que de mettre tout sur le dos du pouvoir, tout du président. Le président, comme il l'a dit, il a d'autres chats à fouetter. Il n'a pas intérêt aujourd'hui à aller euh, faire des, des choses euh, comme celles que nous vivons. Non, le président de la République, quand même, il est au-dessus de la mêlée, il est au problème qui est arrivé à une personne, qui peut arriver à n'importe quel citoyen, à n'importe la vie, la vie, euh, sentimentale. Donc maintenant, il faut que Ousmane soit plus serein et qu'il gère l'affaire lui-même avec ses propres responsabilités. Mais je ne pense pas qu'il y ait un quelconque complot politique par rapport à ça. Vraiment, nous le dégageons à tous parce que c'est une affaire civile, privée. Depuis 3 ans, 4 ans, elle connaît, il connaît la fille. Euh, euh, il n'a qu'à régler ça. Ça nous regarder, en vérité. Ça ne doit pas nous C'est entre deux personnes, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Nous Euh. dañuy euh, ñëw ci li nga xamante ni moom di euh, Covid 19 ak vaccin yi daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 moom nag daal dina jël li nga xamante ni moo di dose vaccin wam moom sax daal na defale li nga xamante ne ni moom moo di benn communication di wax rek ni nañu daal di dem vacciné wu ndax moom nag daal dina jël. li nga xamante ni moo di douze jours vaccin wam moom nag mu nekk lu nga xamante ni nee na benn exemple la boo xamante ni ñëpp dañ ko dañ koo war a euh, topp. wax jeex bu ñoo jugee ci li nga xam te ni moo ñeel affaire vaccin bi dañuy ñëw ci ah, wàllum ah, Covid 19 bi nga xamante ni nii. Euh, nit ki euh, tey la duggoon ci li nga xamante ni moo di euh, Sénégal le 2 mars 2020 la duggoon ci li nga xamante ni moo di Sénégal tey nag ñu ngi ci le 2 mars 2021 Covid 19 daal di def un an mu nekk un an yoo xamante ni nii daal na métti trop ci réew mi mu nekk nag loo xamante ni aussi bari ay décès yoo xamante ni tamit daal na si am dañuy daal di bàyyi Fatou Ndoye rek mu daal di def bilan wu Covid 19 bi depuis 2020 ba 2021 ginnaaw bu ñu nemmeekoo suñu premier cas di coronavirus atum 2020 2 mars tey nag ñoo ngi si 2 mars 2021 atum yàlla bu ñu fi nemmeekoo suñu premier cas importé ab nasaraan dugaloon ko fii ci réew mi boobu ba léegi nag ñoo ngi nemmeeku ay cas yu bëri ñu toll tax ci 34 832 cas déclarés ñu nemmeeku si tamit ay ñi nga xam ne dañ si ñàkk seen bakkan mu toll ci 888 décès déclarés jamono bu ñuy wax ak yéen nag euh, tey euh, si suba ki nga xam ne mooy euh, ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ak ñu mu àndal kii di professeur Seydi ak kii di professeur docteur Bousso ñoom nag àdduna ñi ci li nga xam ne noonu la ñu yoree li nga xam ne mooy gestion Covid 19 ba tax na tamit ñoom ñoo ngi fàttali li nga xam ne rek jaar nañ ko ak matuwaay yi nga xam ne lii di kër gi di organisation mondiale de la santé ñoom tegoon nañ ko maanaam lii di mesure mesures barrières yi ci ginnaaw nag euh, la ñu indee li nga xam ne mooy euh, dose euh, vaccin yi fii ci Sénégal ñu réceptionné woon à hauteur de 200 000 doses yi nga xam ne waa Sinopharm di chinois yi ñoom ñu ko lool ba tax na rek fu mu nekk nii ñoo ngi toll ci 35 000 personnes yi nga xam ne jot nañu am seen vaccination gis nañu tamit ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr jiite woon boobu campagne de vaccination ci ginnaaw tamit gis nañu ki nga xam ne mooy njiitu réew mi son président président son excellence euh, Macky Sall moom tamit jël na li nga xam ne mooy euh, dose vaccin ba tax na rek euh, ñuy xaarandi rek lu fi ruusandi ci vaccin yi nga xam ne war na fi duggaat ci biir réew mi di Sénégal. dañuy dugg ci beneen histoire affaire institut de beauté wax nag ci institut de beauté boo xamante ni mu ngi ca golfe sud mu tudd Beva Beauté ki nga xamante ni moom moo ko moom nag dañ ko daal di teg loxo ba noppi daal di koy déférer. ci noonee nag li ñu koy daal di euh, toppee rek moom moo di euh, menace ak division de données euh, personnelles ci noonee nag salon de massage boobu daal di wuyoo ci turu Beva Beauté nekk ca site nekk ca Golf Sud nag dañ ko daal di tëj ngir sextorsion ci noonee nag propriétaire bi nga xamante ni daal nañ koy teg loxo ba noppi daal di koy déféré ba tax na nag bu ñu sukkandikoo ci récit bi nga xamante ne ni journal bi di enquête daal dina koy def moom moo di kii di GS moom nag nekk ab commercant moom dafa daal di bëggoon li nga xamante ni moo di ay moment d'intimité yu nga xamante ni bëggoon na ko am euh, ca boobule euh, salon ci noonee nag euh, ñu daal di koy proposé ngir mu def li nga xamante ni moo di benn tour ca Golf Sud ci li nga xamante ni moo di salon de massage boobule di Beva Beauté. moom nag euh, dafa daal di woo li nga xamante ni moom moo di patron euh, salon boobu nga xamante ni mu ngi toll ci euh, vingt quatre ans ci noonee nag mu daal di koy wax rek ni que dafa bëgg li nga xamante ni moom moo di benn massage dafa bëgg tamit daal di dundu ay moment yoo xamante ne ni du ko fàtte ay moment yu neex moment de plaisir loolu waxal mu daal di woote kookee tamit daal di koy wax rek ni que mën na ñëw euh, visiter li nga xamante ni moom moo di euh, lieu yi ci noonee euh, ba mu yegsee ci salon de boobu rek daal di defaluñ ko massage benn yoon luñ ko defar rek moom moo di li nga xamante ni moom moo di ay fellation ak ay attouchement lañu ko daal defal ba tax na ci biir attouchement yi nga xamante ne ni patron bi mu ko ko doon defal ak li nga xamante ni moom moo di yeneen yoo xamante nii c'est intime Euh, ci noonee nag euh, kii di commerçant bi téléphone am dafa daal di sone muy euh, wuyu téléphone am patron bi nag si la patronu institut de beauté boobu si la jëlee téléphone am di filmer boobule commerçant sans mu yëg ko coow li nag noonu la daal di demee waaye nag gannaaw ba commerçant bi ñibbee këram ci noonee nag ki nga xamante ni moom moo di mademoiselle Cissé yore salon boobule. moom euh, daf ko daal di woo téléphone la ngir wax ko nag ni que euh, daf ko daal di euh, filmer nu ba noppi daal di ko koy envoyé en gis de preuve ay vidéo yu bëri nag la ko daal di yónnee ci noonee nag la commerçant bi daal di koy laajee li nga xam ni moom moo di njëgu vidéo yooyu femme bi nag daal di koy wax rek ni que million la koy jox ngir mu daal di garder vidéo yooyu le sinon bu ko ko joxul rek ci bu gaaw dafay daal di publier vidéo yooyu le sans hésiter ba tax na nag gannaaw ba mu ko menacé ni que dafay daal di euh, jox euh, vidéo yooyu la kii di Adamo euh, ci noonee nag commerçant bi daal di paniqué daal di ko yónnee ci daar daar bi 400000 francs CFA. waaye nag gannaaw 400000 yi nga xamante ni daal ko yónnee moom femme boobule mel na ni bëggee moo ko daal di dàpp ndax nag dafa daal di woowaat waajile daal di koy laaj reliquat bi ba noppi daal di koy laajaat li nga xamante ni moo di benn téléphone iPhone 11 Pro Max bu fekkee. fekkee ni ko joxu ko nag daf koy dal di yónnee li nga xamante ni moom moo di vidéo yi kii di Adamo ci noonee nag moom commerçant bi tardewul benn yoon ngir def li nga xamante ni lii loolu la femme bi euh, laajte ci noonee la daal di yóbbu yónnee benn livreur bu nga xamante ni ni moom moo daal di yóbbu sax li nga xamante ni moo di euh, bagage yi foofu ci euh, salon boobu ci noonee nag euh, le commerçant bi daal di euh, expliquer mbir mi euh, benn xaritam xaritam boobu sax moom moo ko daal di conseiller ngir mu daal di porter plainte ci noonee sax la daal di dem fi nga xamante ni moom moo di division spéciale bu sécurité ci noonee nag euh, la daal di euh, porter plainte waaye nag euh, gannaaw ba ñu defee li nga xamante ni moom moo di ay investigation ci noonee nag la ñu daal di jàppee ki nga xamante ni moom moo di mademoiselle Silla mi nga xamante ni moom moom moom boobulee institut de beauté information yi nga xamante ni daal nañ koy fësal rek waa Seneweb ñoom ñoo ko daal di joxe. dañuy wax nag ci euh, artiste bi di euh, jibaa moom jibaa nag euh, nekk ko nga xamante ne nii xale la waaye tamit talent baa ngi fi macha allah su wëyee rek nit nii dañ koy daal di bëgg rawatina su wëyee mbëggeel moom nag set fois yi dafa daal di génnewaat beneen chanson d'amour boo xamante ni mu ngi ko tuddee guy mu nekk nag loo xamante ne nii jamono ji foo tourné son boobu ngay dégg son boobu sax dafa daal di atteindre li nga xamante ni moom moo di deux millions de vues deux semaines ñu koy euh, félicité bu baax a baax di ko ñaanal rek moom Djiba moomu liggéey bi euh, yokku ci noonee nag dañuy daal di jeexalee xibaar yi ak benn fait divers boo xamante ni dañuy daal di bàyyi Fatou Fatou Ndoye rek mu daal di koy euh, faram-fàccee. dañuy dem fële ci Mbour 4 fële ci Thiès foofu nag suñ ko déggoon nag dañuy euh, wax li nga xam ne mooy problème foncier ba tax na bi pa nag ab charretier moom moo sàkku benn xale bu am ñeenti at ginnaaw euh, si diggante bu mu tollee 10 euh, heures jëm 11 heures ginnaaw boobee nag ab soxna boo xam ne dafa xam ki nga xam ne mooy xale bi moom nag génn di ñaalu li nga xam ne charretier bi def na ko foofee si diwaan boobee di ñaawlu nag li nga xam ne autorité yi war nañ ko mun a dox doxalee foofu sécurité bi euh, dañu nemmeeku foofu euh, amul ab euh, sécurité bu mot ba tax na tamit nee na kii de charité bi xam ne mooy lëmbee foofu waruñu ko may benn yoon muy tere seen doom yi ñu dem jàngi information yi ñu ngi ko jëlee fële si Thiès info lu ci mën a rusandi rek dinañ leen koy indi indil si suñu yonaan détail xibaar ba tey rek internet Feeling dakaar fii laay aw jox leen dig dajee ëllëg ak jàmm mu ngi noonu internetu Feeling Dakar lii lañ leen indiloon ci ay xibaar cant ak ngërëm ñenn leen ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci suñu xibaar.